docteur Khardiata Diallo maa ngi lay nuyu. waaw monsieur Gomis maa yow médecin nga infectiologue nekkit responsable centre de traitement des épidémies ci hôpital Fann nekkit enseignant chercheur ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru li lëmbee dëkk bi jamono ji muy kon coowal ébola bi nga xamante ne feeñati na ca Guinée bi nga xamante ne jege nañu lool laaj bi njëkk bi d'abord mooy nga wax ñu lan mooy Ebola lan la ñu mën a xam ci feebar ébola maa ngi lay remercier maa ngi lay jaajëfal monsieur Gomis mhm. Ebola feebar la feebar la bi nga xamee ni comme ni ko nasaraan ni ñu koy waxee ci tubaab fièvre hémorragique virale mooy feebar la bi nga xamee ni day joxe yenn si euh, yi mooy da ngay faral di nàcc mhm. ba pare li koy joxe virus la comme corona li koy joxe ni mu nekkee virus Ebola li koy joxe virus la virus bi noo ko mun amee mun nga ko amee ndaxte da nga nekkoon euh, di lekk ay yàpp yi nga xamee ni mooy comme ni ñuy wax viande de brousse mm. di affaire wala di manipuler ay animaux de yu ko am mais le plus souvent surtout ñun suñu ka ñun ñi nekk Sénégal li si ëpp transmission bi mooy wàllante bi nit ak nit a koy def nan lay wàllee mooy que ni euh, yow yaa koy sa morom daf la koy jox parce que daf ko am mu nekk si ñàqam mu nekk si ay salive tuflitam mu nekk si deretam mu nekk si ay wàccoom mu nekk si ay cabinetam ainsi de suite noonu lay wàllee. Mhm. voilà noonu lay wàllee moo moo tax mu nekk feebar bi nga xamee ni feebar buy wàlle la mais bi nga xamee ni dafa garaaw ba pare li muy rey dafa bëri ndax booy xool Ebola boo jëlee téeméeri nit yu am Ebola. Mhm. daanaka juróom-ñeent fukk yi mooy quatre-vingt-dix ah. juróom-ñeent fukk yi waaw mooy quatre-vingt-dix. <laughs> waaw juróom-ñeent fukk yi dinañu dinañu faatu. suñu defulee attention. Ebola nag nan lay feeñee ci nit ndax bokk na euh, anam yu muy feeñee ni muy manifesté wu ak coronavirus. waaw Ebola nag ay signam dafa am na si yu bëri nga xamee ni nuru na ay signu coronavirus ndaxte booy xool comme ni ko turam waxee fièvre hémorragique virale donc am na fièvre comme ni si corona ni muy faral di amee fièvre. Hmm. Ebola dina def si mu ay bopp yu metti dina def coono bu metti si yaxam bi dina def. ay euh, muscles yi di metti ébola mën na la jox ay maux de gorge mooy sa pot bi di metti comme exactement Covid bi ni mu koy def. Mm-hmm. mën nga am ay jaare mën nga am wàccu yooyu yëpp Ebola da koy joxe comme ni ko Covid di joxe pour waral ni Ebola ak Covid bëri nañu vraiment ay similitude ay ay ay signes yu ñu niroole sauf peut xëy na. hémorragie bi mooy nàcc nàcc bi nga xamee ni ci Ebola lañ koy gën faral di gis dans les formes graves. Mm, mm. léegi nag lu jëm ci eh, cas asymptomatique yi ndax dañ koy faral di nemmeeku ci Covid 19 bi ndax lu ni mel mën na am ci Ebola. Euh, déedéet Ebola le plus souvent du am soo xa amee rek di nga am signe sauf bu fekkee ne doomu jàngoro bi dafa nekk sa yaram mais génnagul waneewul boppam et su boobaa sax yow kooku doonu du wàlle mais nga gis ko am Ebola te amul signe bëriwul. même bu dee ay signes simple la quand même. Hmm. du dem ba def ay hémorragie di nga gis ni dina fatigué di nga gis ni dina am dina jàmbat ni bopp buy metti boole si nag fièvre waaw. covid nga xam ne mun nga ñëw bañ am benn signe te amee jàmm jàngoro bi bii moom wax dëgg même bu dee ay signes yu ndaw comme ay fièvre ak yooyu di nga am feebar fa Ebola nag dikkaat ci anam yi nga xamante ne Sénégal ba tey noppeegu ñu ci xeex jàngoro yi coronavirus naka noonu sax àdduna wërngal këpp ndax moo fi lëmbee dëgg la naam yegg seegul fii waaye ndax jar naa tiit. Ah, waaw waaw jar naa tiit de te tiit nañ sax nag tiit nañ ñun ne personnel soignant bi ñun tiit nañu parce que xam nañu Ebola ni mu grawee xam nañu ni mu dangereux xam nañu ni muy xëyee. Hmm. donc vraiment lu jar tiit la surtout que ñun. ñun xam ñëpp xam nañu 2014 fi ñu jëlee woon Ebola Guinée la Guinée boobu bu yàgg ba léegi ébola mi ngi doon am si yeneen dëkk ña euh, dëkk yi nekk si Afrique. mais mosul nekk RDC voilà Congo yooyu yëpp doon na am mais mosul mm-hmm. nekk vraiment. benn pandémie c'est-à-dire que Sénégal àddina wërngal këpp yëpp jot si. Mm-hmm. mais bu Guinée bi bi mu ñëwee dafa nekk li nga xam ne dafa dem àddina wërngal këpp yëpp. Mm-hmm. loolu ñu tiital surtout que ñun dañu jege Guinée et ñëpp xam nañu suñu frontière yi turu frontière rek la waaye vraiment frontière dëggante njaay amu si. Ah, li waral tiit bi ndax am capacité maanaam suñu jumtukaay ñu yor mën a dalal wala am déet euh, ñii di aji tawati yi. ah loolu kañ def naa tiit. c'est vrai que fi ñu toll nii du ñu wax ni ñun dañu dépassé affaire Covid bi dépassé nañu parce que ñi ngi jël ba léegi maladie am nañu capacité mais xalaatal rek lii nii ñu amee nii nga xam ne déjà ñi ngi ragal ni su continuer nii xëy na maladie dinañ am problème pour euh, am ay euh, lalu hôpital yu ñu leen def imaginaire bu si Ebola yokkoo te loo si xamul nit ñi mën a def si Covid bi kenn mënu ko def si Ebola bi. ndax hmm. Covid bi mën nga di nit ki toogal sa kër nga sol sa masque raxasoo sa kii toog di nga doo toog sa kër ñu xool la mais Ebola mënu ko Ebola garaaw na garaaw bi nga xamee ni rey bi gaaw na gaaw bi nga xamee ni mu mënoo wax nit ki mu toog këram donc ku am Ebola il faut impérativement nga isoler ko. Hmm. waaw hmm. donc euh, vraiment nekk nii moom. ah loolu moom tiital nañu. léegi naka la Sénégal mën a fexe ba mucc ci feebar boobu. ah xanaa jël ay um, jumtuwaay mu um, muccukaay xam nga nu ñu koy waxee jël ay précaution matukaayam voilà jël ay matukaayam surtout par rapport ak suñu frontières yi mhm. parce que ñëpp xam nañu frontière nu mu defee léegi nag pour ñu mën fi mucc il faut que ñu gën a ay contrôle au niveau des frontières ba pare nag di def communiquer def communication nit ñi parce que xam nga sénégalais dafa néewal ndax li ñuy wax rek euh, lu bon li moom du ñëw si ñun ñu keneen rek la il faut ñu xam ne ñun on n'est pas à l'abri ni ko Guinée amee noonu la mën a ñëwee si ñun et plus mën na ñëw sax pendant que duñ ko sax xalaat donc il faut que ñuy def communication à travers la presse communiqué dem ci biir ci dëkk dëkkaan yi def communiqué surtout dëkk yi nga xam ne ñoo nekk ci frontières yi ak ak ay Guinée yooyu pour ñu xam ni feebar bi mi ngi fi mun na law ñëw si ñun te su boobaa musiba lay nekk parce que fi ñu nekk nii am nañu lu ñu doy bu bëgg tubay jël matukaay googu euh, dëgg la kenn ñaanu ko waaye ndax xam euh, fajkat yi ngeen doon euh, jël ngeen seen matukaay saa yu feebar bi dugg see fii ngeen mënu jàmmarloo ak moom boole ci tamit li ngeen di wéy di jàmmarloo ak Covid bi. ah waaw waaw bi ñu déggee ni am na ay quelques cas depuis une plus d'une semaine rek la ñu commencé jël suñu ay matuwaay et il faut dire que ni sax Ebola boobu noonu. Hmm. moom si moom la ñu commencé woon moom moo tax tey jii ñu mën a jàmmaarloo Covid bi. Hmm. ba ñu toll nii ndaxte bi fi Ebola ñëwee si la ñu commencé woon jël suñu matukaay c'est que bii may waxtaan. Hmm. biñ koy def biñ koy tabax boobu Ebola bee taxoon. ñu tabax ko. Ah, donc fajal fi benn Guinéen <laughs> ba mu dellu waaw fajal nañ fi ba mu dellu dëkkam waaw. donc loolu taxoon na ba période boobu noonu formé woon nañu vraiment sur tout le territoire sénégalais on avait formé formé woon nañu euh, médecins yi formé woon nañu infirmiers yi ainsi de suite donc formation boobu moo tax ba bi Covid ñëwee dañu dàppaliwaat rek ah ndax formation bi amoon na ba pare te xam nañ nan la ñu jëlee en charge xam nañu matériel bi ñu soxla yépp mi ngi sur place Ah, ah, li wute ak euh, peut-être épidémie bu njëkk bi ba mu génnee def na ay weer laataa ñuy am vaccin bi waaye bii ñu ngi ñuy xamal ni vaccin bi kon existé na ba noppi te mu ngi sax ca makkaanub OMS ca Genève ah, ndax am loolu ci vaccin bi léegi mën nañ ci sukkandiku ngir faagaagal feebar bi. waaw waaw vaccin bi rek moo ñu si mën génne te lu ngeen xamul mooy même bi ñuy kii si période Ebola bi bi mu jeexee. Hmm. en deux mille seize deux mille dix sept fii 2015 2016 2017 def nañ fi ay saytu nañ fi vaccin yooyu am na ci yi nga xam ne fii dañ ko saytoo woon ñun ak Guinée ak ay Cameroun ak yeneen dëkk ah, def ak yi defoon nañ saytu woon nañ si vaccin yi ba gis ni vaccin bi baax na dina marché donc ñun fi ñu toll nii liñ siy mën a génne rek mooy vraiment que comme feebar bi commencé na foofu ñu commencé def vaccin yi ñi nga xam ne ñoo ko soxla balaa muy law. fu mu toll nii lu ñu soxal ñun mooy vaccin wu Covid bi ba léegi dëgg la naam gouvernement bi en tout cas def na ci euh, li ci war ngir mu ñëw waaye mu mel ni am na ba léegi ñi nga xamante ne gëmaguñ ko maanaam amuñu ci kóolute gu mat sëkk ndax xam mën nga dalal xelu sénégalais yooyu tey. ay waay monsieur Gomis ñun si lañu dëkk. di dalal seen xel di leen wax ni nañu nañu xam ni vaccin bi baax na que ni moom moo ñu si mën a génne gis nga soo soo ma déggee ni ñi di wax. Uh-huh. ñu naan vaccin bi européen dañ koy indi pour faagaagal ñu. gis nga européens yi bu ñu bëggoon faagaagal yàgg na du du vaccin la ñuy jaar ñun yi ñuy lekk xoola yi ngay lekk rek boo demee jën bi yi ngay lekk yëpp presque lan lañ fi defaree Sénégal ah mm-hmm. oh, euh, si bëri c'est à l'extérieur lañ koy jëndee mm-hmm. te ñoom fi ñu toll nii am nañ lu leen doy ndaxte ñoom fi ñu toll nii ni ñu defee ba vacciner seen population loolu la ñu gën a xaar bien sûr que bëgg nañu ñu vacciner wu parce que ñun ñëpp si bokk yam ñun suñu ñoom bu ñu vacciner woo te ñun jëluñu dafay mel na zéro ndax nit ñi dañuy dem ak dellu si Hmm. mais ñun fi ñu toll nii ñun ñoo war a jox si suñu bopp xam ni vaccin bi am na te gouvernement sénégalais ñefe na ñefe ñefe ba am ko et c'était c'était pas évident hein pas évident parce que pour Afrique am assez de vaccin pour vacciner sa population loolu c'est pas évident bu Sénégal nag état bi lu góorgóorloo ba am ko vraiment ngal la nañu xam ni vaccin bi pour ñuul la pour suñu bien la parce que nag nañu waxante ba waxante dëgg hmm. dëgg la ci di faj nii waaye nag luñ si mën a génne dëgg mooy vaccin Mhm. léegi nag lu ñu mën a def mooy ñu wax ak population bi pour ñu mën a adhérer ci loolu ñi nga xam ne ñoom ñooy cible yi ñu mën a vacciné wu. coronavirus boobu léegi ñun ñaa ngi wax léegi coowal variant yu bees yi ñii di wax variant anglais variant sud africain am na sax ñuy wax variant brésilien est-ce que loolu léegi amul lu mu ñëwaat soppar ñi ci souche classique bi ñu xamoon ci yëf yi. Mm, non non nañu dalal suñu xel nag ñun Sénégal ñun Sénégal pour le moment on n'a ñi ngi soytu si bon si fii képp fi nga xamee ni ay voyageurs dañ koy duggee muy frontière aérienne yi muy frontière terrestre yi muy aéroport muy yeneen yi ñëpp képp ku fa dugg ba ñu testé la ba nga am kii euh, virus bi corona bi ah jël nañu sa sa sa kii boobu sa sa test test boobu soytu ko seet ban ban kii la ban virus la ndaxte virus bi ñu am classique la wala ndax dafa am ay variant pour vous dire que pour le moment. Hmm. ñun xëy na war nañu jël suñu ay matukaay mais na nit ñi xam ni amaguñu amuñu problème yooyu. pour le moment virus bi fi circuler mooy vraiment virus classique bi on est pour le moment à l'abri ñu continuer rek nag di continuer ni ñu doon def mooy def surveillance bu rapproché si au niveau des frontières fii nit ñi di jaaree pour dugg Sénégal. li wokk Guinée ci Ebola bi moo xuri Sénégal ak fièvre jaune ndax demoon na fi ñu nemmeek ni kon dikkaat na pour yow lan moo waralaat feebar boobu ñëwaat. ah li ko waxal rek bëri na ko waxal mooy que ni nit ñi dañu bàyyi seen loxo le fait ñu am corona ñu bëri dematuñu hôpital ragal nañu dem. gis xam nga PEV bi dafa mus a am yàgg na. Mhm. nit ñi ñu ko doon adhéré ci PEV bi mais depuis quelque temps parce que mine de rien corona bi def na un un an léegi ci ñun. Mhm. Hmm? léegi boobu ba léegi nag nit ñi ñemeetu ñemeetuñu dem vacciné wu ñu dem hôpital. de euh, parce que ragal nañu bu ñu demee ñi ñuy fi ñuy fajee ñu foofu ñu wàll leen fa mooy li ñuy wax saafara bu jur jàngoro. Mhm. mais ragal nañu tax dem vacciner seen ay doom parce que pour ñoom bu ñu demee def vaccin du vaccin bi lañ leen jox vaccin corona bi ñëpp di lëmbe moom leen di jox alors que loolu. donc lool yooyu rek tax na ba vraiment ñu gis ni am na resurgence su fièvre jaune au niveau de certaines régions telles que Kédougou ak Tambacounda. ci jamono yi ñuy wax coronavirus noppeeguñu fii ñuy wax tamit fièvre jaune di wax Ebola di wax sax léegi eh, grippe aviaire ndax am am na lu leen lëkkale yooyu la feebar yëpp yi nga xamante ne mooy dal ci askan wi eh, jamono ji ndax am na explication scientifique. <laughs> li ñuy wax rek li ñuy naan tombé moo waral ay hmm. am nga dafa grippe aviaire bi ñëw tombeeg corona bi nekk fi tombeeg ñu am kii wu fièvre man du ma ko waxee scientifique scientifiquement xëy na am na benn kii mooy que ni ñun déjà au niveau du point de vue mondial. Mhm. on a dafa climat bi dafa déréglé. ah mhm. léegi gis nga sedd bi amatuñu presque sedd. Mhm. gis nga taw bi dafay bëri léegi ay ay inondation yëpp a déréglé et même à part ça nit ñi dañuy dem di fekk léegi fii euh, bàyyi ma yu dëkkoon di dagg garab yeeg yooyu di dem di fa dëkk. xam nga yooyu dérèglement yooyu yëpp day indi yenn feebar yi ñu amul woon ndax feebar yu si bëri comme corona yàgg na am si ay sources rek yooyu. Mm. mais daawul ñëw si nit. mais boo demee nit ki fi mu euh, bàyyi ma bi mala yi fi ñu nekk yow nga jël seen place ala kulli ñoom tamit toog noonu di xoolee donc euh, yooyu yooyu yëpp tax na ba vraiment ñu am ressurgence yenn euh, épidémie yi yenn feebar maladie infectieuse yi mais en plus de cela li gën a tax affaire yi kii mooy comme li ma wax rek. mooy que ni ñun ñoo ragal dem hôpital dem vacciné wu dem def li ñu war a def loolu loolu moom c'est du point de vue anthropo lañ ko war a xool wala su xool jàngat société bi nan la ñuy euh, réagir nan la ñuy réagir devant benn fait loolu moo ñu si mën a génne. docteur Khardiata Diallo médecin infectiologue nekkit responsable CTE bu Fann ñu ngi lay gërëm bu baax ci sa disponibilité ak leerlu yi. man maa ngi leen di jaajëfal bu baax monsieur Gomes ñu yendu ak jàmm.